sukuran sëriñ seer mbay sukuran sëriñ seer mbay yaa baaxal ñi bonoon yaa jekkal ñi baax waa tund xam nañ sa jëf si ñoom waa tund xam nañ sa jëf si ñoom xam nañ ne yaay defar seeni doom xam na ne yaay defar seeni doom seeni doom xam na ne yaay defar seeni ndey ak seeni baay seeni doom xam na ne yaay defar seeni ndey ak seeni baay ku nekk war na la sant baay seer mbay billaahi yaa maata way billaahi yaa maata way yaay amiril mu'miniina yaay amiril mu'miniina baay sayar sa xalifa gi nuroona xalifa Omar ga baay sayar sa xalifa gi nuroona xalifa Omar ga yaa nurook sa baay ba maam moor mbay yaa nurook sa baay ba maam moor mbay jambaari maam Cheikh mbay ja jàmbaari maam Cheikh Mbaye Dia mbay ñoo sa gannaaw foo jëm yóbba lenoo xam na ne yaay leeral xarnu bay xam na ne yaay leeral xarnu bay baay seer jublu noo bu du mooyoo baay seer jublu noo bu du mooyoo sa xer kanam gi rekk moo ñu neex foo jublu yàlla jublu foofa foo naal yàlla sottal foofa baay seer mbay jamono ji sa jamono la baay seer mbay jamono ji sa jamono la yaa liggéeyal maam Cheikh Mbay ba liggéeyal ko jotee moo tax mu woolu la ba jox la xalifaam moo tax mu woolu la ba jox la xalifaam ginnaaw loola ku fi di maam Cheikh nga def ko ne maam Cheikh ba mu sant la ginnaaw loola ku fi di maam Cheikh nga def ko ne maam Cheikh ba mu sant la waa xarnu bi ñoo booloo di la ñaanal waa xarnu bi ñoo booloo di la ñaanal nga yàgg fee sa yàgg fee njariñal lislaam la sa yàgg fee njariñal lislaam la yéen géwéli lislaam jug taxaw yéen géwéli lislaam jug taxaw te way baay seer mbay mii fi nekkal diinay lislaam neexul ba neexul waaye doomi soxna faati mbay jee neexa way neexa kañ neexa bakk ke bilaayi baay seer mbay jàmbaar bilaayi baay seer mbay jàmbaar ñu ngi ñaanal sëriñ Seer Mbay mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci barke maam Cheikh Ahmadul Kabir Mbay ñu ngi ñaan képp ku dégg suñu way wi nag ñu ñaanal suñu baat bi wér lool ànd ak kàttan barke maam Cheikh